waaw mbégte ah mbégte xam nga lenn loo xam fruit du travail la am na benn liggéey boobu boo ko defee rek day ñëwal boppam sans nga forcer tu vois donc xaar ñu ko woon nag après dañ doon def suñu saison rek ñibbi si woon man plané woon naa vacances depuis mais après par la suite laa jot appel Lamine Diatta si la ma wax que convoqué nañ la donc euh, voilà donc rafetlu nañ ko quoi mbégte la woon te fierté tamit honneur pour Médina bi fi ma dëkk famille bi ñëpp tu vois moo tax daal sant yàlla ci ah loolu yoon la loolu yoon la dafa am leen loo xam ne ne boo ko liggéeyee ci koñ du loo xam da nga ko du xam loo xam da nga jënd nit ñi wala dara mais jàmm bi ngay sekk gars yi moo tax gars yi ba ñu yëgee loolu man ba ma ñëwee gis gars yi stade sax après moo ma feccaloo ma feccaloo na ma quoi alors que gars yi match lañ def waroon na ma fekk ma mer mais après xam nga nit nit nit rek la mën a doon donc li ma li ma andi lu yi ñëw teew noonu donc moo ma yëngal def ma émotion moo tax ma xaw a kii jaayu tuuti après voilà quoi ah mais xam nga maa ngi prouver club ba. donc foofu laa war a gën a prouver pour mën a ñëwaat. donc lépp foofu la fa lay débuter après pour mën a ñëw sélection. donc man comme li ma wax euh, comme li ma wax rek sélection bi ñëwuma fa pour jéem wane ni dama war a ñëw dugal kut kooku. ñëw pour aider équipe bi. n'importe euh, qu'importe may andi que mu doon ay but la wala aider équipe bi mu dugal. donc loolu ma loolu la quoi man objectif bu Sénégal rek moo ma tax a ñor donc. lu ma mun a apporter rek danaa ko apporter. waaw loolu xam nga ñu dem nañ foofu ñoom andil nañ ñu loo xam ne ni que xaaruñu ko woon. ok xamoon nañu match bi dina metti état terrain bi climat yi foofu waaw mais ak ñoom seen ambiance bu ñu andi support bu ñu andi seen équipe ñoom xam nañu bu ñu ñëwee fii dañu fekk triple bi wala quadruple bi. donc euh, loolu ginnaaw bi li ñuy am ak si bi terrain bi lu ñu war a wane rek incha allah te voilà quoi tiituñu ci match contre Mauritanie wala beneen match. sérieusement man moom comme ni ma doon dégg rek retour positif laa ci doon am. que équipe nationale bi boo ñëwee gars yi dañ lay dalal man bref que xaw ma woon kenn à part Pathé Ciss tu vois ak Sadio Mané boobu daanoon naa dégg avant. mais sinon xaw ma foon kenn mais nii nii nii man na ñoom Ablaye Sima ne même jusqu'à présent nii si suba rek maa woon avant tu vois mais nice quoi. mais waaw ajul loolu. ajul <laughs> ajul loolu loolu. loolu moo ko mënoon dimbali dama kay dindi mais xam nga ci la bokk. ah ba tey mu ngi fi le 22 incha allah. waaw prochain week-end après tabaski bi. incha allah le 22 naka gars yi xaar allah.